délai bi ñu Macky waxoon 12 yi couvre-feu bi jeex na ñu ne la est-ce que tamit ah, Macky dina yokkaat couvre waaw Macky suñu président ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér mais comme niñ commencé woon rek premier jour bi gis woon nañ gars di manifester te gis nañu bëri ànduñu ci woon d'accord ndax condition de vie ñu nekkee dëkk bi metti na am ñoo xam ne guddi lañ doon liggéey taximaan yi da nga gis benn taxi ñaari nit ñoo a a ak yeneen maire yoo xam si ni ci guddi gi la jaay place yu bëri si guddi gi lay ubbi ñu bëri gis ñu woon seen bopp si instant heure couvre feu bi mënuñu woon liggéey lépp a ngi taxaw kon tey ñëpp dañuy am yaakaar ñaxtu yi ñuy ñaxtu ci rajo yi wax sa xalaat yeeg yooyu yëpp am nañ yaakaar ne dégg na ko tey dina mën a teggi couvre feu bi ñëpp nekkaat si jàmm ñëpp kon ne liggéey bi comme moo ne feebar bi nañ dund ak moom feebar bi mënut a dem kay nañ kon ne ah am yaakaar mu waaw mën na ko yokk wala mën na ko yokk loolu moom ñu ngi déglu parce que xamaguñu lan lay wax xamal a dañuy toog déglu information rek comme ni comme niñ ko dégloo woon bee passé mu ñëw xamal nañu dañu dañu bëgg a déclaré waat couvre-feu fii nii xamal dañ ko fi bëgg a déclenché waat waaw ñu en daal ñu ngi koy déglu rek ak lu mën a xew moom ñu ngi koy déglu rek couvre-feu boo xamante ni dañ koy gën a yokku kaay di gën mel ni kaay day gën a augmenté kaay day gën a yokku kon couvre-feu man jàpp ma ne couvre-feu mooy solution daal. ñu ñuy sonal parce que fi mu toll nii affaire yi métti na trop. fii nii boo fii nii boo fi taxawoon tey jii nii euh, à partir de 14h da ngay gis nit ñi nit ñi commencé jénn ñi dëkk fu sori commencé jénn 17h moom doo am fenn foo taxaw sàcc yi mel ni tuleeg mali fii nii ñu ngi bëgg a dee wër na la ay magum jëmm dañuy jël seen alal même fajar gi heure bi couvre-feu bi di jeex nit ñi dañuy jógandoo sàcc yi. mag ñi dañuy jénn. ñu booy profité jël sa alal affaire bi insécurité totale la jur amul benn njëriñ moom wax dëgg fa yàlla waaw bu ñu ci mën dimbali moom ñu dimbali ci ngir yàlla war a sóoli ñu ngi bëgg a dee sonn nañ waaw ba tey mun na ko yokk mun na ko bañ a yokk waaw ah, mais lépp mu ngi dépendre si moom rek ñun moom instant lu ñëw ñu dund ko amul benn njëriñ daal groupe bi daal ñun gis nañ ne amu fi benn njëriñ solol nañu ku besit appétit gars ne jog gi dugg mun a liggéey ba mooy loolu noonu am na ñoo xam ne xam nga nekk si waar bi xam nga ba ay 22 heures wala 23 heures heure boobu noonu seen job day changé lu ñu doon am duñ ko am affaire daal métti na si suñu bëri daal si ñëpp daal daanaka daal xam warul yokkaat parce que affaire bi dafa métti dafa métti torop doomu jaambur yaa ngi nii sonn nañu lu ñu war a digal kay nañu jàpp si masque yi couvre-feu bi moom man mënuma tur bi sax waaye nañ ko bàyyi mu digal ñu masque yi masque yi mooy dëgg bi. ñun ci lii la ñuy liggéey dañoo bàyyi yaay ak papa ak ay doom te amuñu fay fenn fu ñu xëy ñun ay baadoole lañu xale yu góor yaa ngi nii amuñu fu ñu xëy ñu ngi seen jaay yére yi seen jaay yére yi la ñuy yónnee seen jabar dépasse moom la ñuy yónnee seen pap seen pap yi def lu ñu leen di may ku furfoo bi da koo war a bàyyi mu digal ñu masque yi masque yi moom bu ñu ko digale moom jàmm dina am dax boo doon jaay 5000 boo xëyee ngay jaay si kii 2000 1500 loolu tamit du jaay surtout ñun ñi nga xam ne dañuy jaay gerte caaf gerte caab bi ay ay 10 heures ci guddi lay gën a dox waaye balaa timis nga ne ngay ngay ngay ne da ngay wàcc loolu tamit doxul nañu nañ bàyyi couvre-feu bi te mu digal ñu masque yi masque yi rek moom moom bu ko jàppee rek moom jàmm rek ay am. ah nun moom yokkaat bi du ñu arrangé moom nun daal mu jeex la ñu bëgg na jeex tàkk ndax nu ne tam ay njaboot ci njaay mi rek lu ñu yaakaar te njaay mi guddi la njaay mi dong lu ñu yaakaar te guddi lu ñuy jaay. kon na bu doon sunu sag moom da koy yemale fii rek mu jeex ñu jël yëpp wekk ko ci loxo yàlla ak yonent bi yàllaay aar doomu aadama yëpp ci loxo yàlla da ko teg ci loxo yàlla mun ñoo yaakaar ne nekk ñun ci boo xam ne mën a vaccin sénégalais yi parce que ci loolu noonu ci lañ yaakaar ne après moo war a ñëwaat man vaccin moom man moom laayagu ma ko quoi vaccin yi moom gaayan man moom na dem daal loolu moom xama man bare ma ko daal gisuma si njëriñ tamit xaw ma nag mais tey bu ñëwoon di nga vaccin non man non ko xam sax ku ma ku ma xam sax su ko doon def non man du moo nangu nga koy dama koy nga koy def vaccin daal dama gis ne amul benn njëriñ daal loolu laa gis daal xaw nag nu koy gars yi tamit couvre-feu bi amul Dakar amul Thiès amul région 14 région Sénégal yëpp dafa war a dindi fépp feebar du guddi lay dox du bëccëg heure yëpp lay dox comme feebar bi am na nañ ko a yokku dindi amul benn njëriñ président yow laay waxal couvre-feu bi amul benn njëriñ war nga mën a dindi ñu dellu ci lañ nekkoon comme comme comme nañ koy waxee couvre-feu bi dafa ñëw cas yi gën a bëri ay 196 cas tey ban njëriñ la am nañ ko dinañu ko ne nekk li nekkoon borom njaboot gis ci seen bopp ñu doon liggéey guddi gis ci seen bopp moo ëpp njëriñ waaw comme li ñuy wax rek lu am France moom nañ prévoir xam ne dina am Sénégal loolu moo am buñ ko ragal a wax man ragaluma loolu li am France mooy am Sénégal mais nañuy ñaan rek mu xool ci population Sénégal bokkul ak population France li am France ni ku may vacciné rek ki njëkk a ñëw moom laay njëkk a defaral bagage pikir bi bu koy moom laa koy njëkk a pikir pour lan ñu may pikir man dara dalu ma may en bonne may man corona bi sax dama ko gëm ba bañ maa mën man vacciné man gëmu ma ko kon du ma xaar kenn di ma vacciné comme ni ko Ablaye Mbaye Peex waxee rek comme moo ñu jàngaloon nan lañ raxasoo su pikir bi ñëwee nañ ko njëkk a pikir moom président ñu xool après bu ñu toogee une semaine deful effet ñu doog loolu du ñu arrangé nun ndax suñu genn wala client yëpp kees ji lay jógee foofu la ñuy indilee bagage indil ñu ko fii ñuy jaay ñooñu bu ñu leen arrêté fii kon duñu ñu arrangé déedéet du ma ko nangu de moom man man sama mbir yëpp ci loxo yàlla laa ko teg yàlla daal mooy ar doomu aadama lu la warul daal kenn mënul wax a wax bu mu dal la nañu bay yëpp ci loxo yàlla yàlla mooy ar doomu aadama mooy sàmm doomu aadama moom mi wàccee doomu aadama ci kaw suuf moo koy aar moo koy sàmm ah, man de ànduma si ànduma si de ndax xaw ma ban vaccination moom la ñuy andi wóorul wóorul de. kon bu ñëwoon ne dañ lay vacciner di nga ko nangu. man damaa jabe te du ma laal vacciner waaw. Eh, vaccin comme ni ko benn paa waxee nee na bi bi bi raxasu ñëwee Macky Sall moo njëkk a raxasu waa zel bi mu amee moom moo njëkk a zelu war na gars yi waaw moom bu ñu pikiiru bu ñëwee moom la njëkk a pikiiru waaw kuy pikiiru daal nga pikiiru mais ñun moom wax dëgg yàlla ñu jégal daal ak seen i pikiir balaa nga naan naam ne fa te bay sa weewu tànk. ñoom ni ñuy ñoom ni ñuy imposer piqûre ñoom nañu piqûre ba pare balaa ngaa digle sangaa day fekk yow nga set